première réaction mooy euh, sant ndax ndax ah, président pouvoir bi ñu koy jox lu politique sénégalais pouvoir présidentiel dafa ëpp dafa war a nekk loo lu war a lu war lu employé bu jël boo xam ni Sénégal yëpp ci am ay action ñu ne réew mi bëgg nañ ko doxal jëme ko fi ñu bëgg candidature yi taxaw ku nekk def sa programme ñu tànn ki nga xam ne yaakaar nañ ni moo moom moo gën a valable kooku dara du am rek est-ce que kooku war na nekk kilifa boo xam ni nit ñi dañ koy ragal mooy buum di buum di ko daa def non c'est l'employé des Sénégalais sont plus petits Sénégalais donc la mu ñu yoree budget boobu ñun ñoo koy cotiser ñu impôt yeeg douane beeg yëpp loolu la ñu dajale jox ko budget jox ko gouvernement ñu liggéey kon ñooñu ñëpp suñu employé dañu war respecté waaye dañuy dem ba finalement respect bi nga xam ne moom lañ war a jox pour bi ñu ko def mm-hmm. am nañ ci ay preuve dañ ndax euh, du moom jëkkewul ci moom affaire baa ngi jëkkee ci Ablaye Wade fi nekkee gis na ku ne xam na ni doon doxale ba ni mu fi jógee moom ñu ñëw bi mu ñëwee def na lu tane bi Ablaye Wade doon def mm-hmm. mais doyul yëpp ay gérer réew mi ci kaw côté économie moom mi du mooy hmm. économie bi doo xam sax ne jéem naa ko hmm. secteur bu ne la ma Abdoulaye Wade fekk ma liggéey nekk en plein dans mes mu toog ñu ne ko hey sama naaw mu jàppal ma dugal ma ci kaso jël sama un milliard yàq sama ba kan nga toll sax si un milliard ba léegi dossier bi ñu ci taxaw Macky ba mu toogee ba léegi ba mu faloo ba léegi ba muy fal avant muy fal la ne woon ko def. 12 ans 12 ans te 1 milliard lañ ma jëlal yàq sama liggéey kooku boo ko doon imaginer war nañu fay que ñoo fi nekk loolu man leen di leen dimbali ñooñu tey boo xoolee seen capital <coughs> c'est 300 fois plus que donc koo xam ni acteur xam muy économie xam muy liggéey kooku bu nekkee ci bopp réew am na loo xam du ko def wala bu ko defee dana xam lu li mu def lan moom lañ ko war a régler naka lañ ko war a réglé ba wàññi lu am problème dañu ko def dañ fiy def un politicien boo xam ni politique la li jàng xamul dara ci économie muy diriger. d'accord mais est-ce